soo xam ne dafa am tur yàlla may ko alal may ko tur mm-hmm. yow xamuñ la sa sa soxna la ñu xam mm-hmm. mu lay war la gêner warulaa

goxam moom laata faj bi dafay jàngale ndaw ñi breveté def brevet euh, de fin d'études moyenne kon nag ñoom genn wàllu gi yëpp am ñoo xale yi nag ñoo ñëw félicité biir nañ vous Je voudrais être présent au moment de la délibération, mais malheureusement, avec le travail, je suis Non sono vraiment content. Saya ne spera Anta, anta baba kerek. Pula ya bapak leh. aywa minggu non noon jadi di lupa rafetlu bu Cibir a baax ci biir goxam daf may fàttali di suñu papa ji eh, mbay saar

vraiment l'image image yi ma vraiment quand euh, trop trop trop parce que je voyais un peu le le praticien qui parlait de santé des plantes. Mhm. mais il avait aussi ce côté très citoyen c'est-à-dire beaucoup ci ça c'est un vrai sénégalais. il est un wax patriote. Mhm. xam patriotisme du ci lamiñ du ci politique rek. Euh, ci aller mais ci dans des actes concrets comme ça. Mhm. Euh, c'est un vrai patriote merci beaucoup euh, professeur ou docteur Samba mais dañ koy féliciter rek. di ko encourager parce que li lu am solo la mooy li nga wax. patriote mooy li njëkk ci moom mu nekk ku am civisme. mooy ku nekk ku am éducation boo xamante ne daf koy permettre lépp lu mën doon ci wàllu jàngale. ci wàllu xam-xam du yam rek ci lu muy liggéey mais da koy tasaare da koy wasaare ba képp bu ëllëgee comme li nga wax xale yi moom bu demoon ba defatul sax. ñii nga xam ne dimbali na leen ba ñu réussir duñ ko mës a fàtte parce que dinañ xalaat ne bi ñu sonne wala bi ñu jàng jëloon na ci xam-xamam ci alalam ci dooleem jagleel leen ko ba une partie ci sen réussite monde am partition bu mu donc ñu koy félicité di ñaan ñep def pas rek. Mm. kenn ku nek gox bi nga dëkk nga pour que bu le ñu yow les bras croisés wala di wax c'est important aywa am na solo roxee. c'est important Asma xam-xam dañ koy partagé. Mhm. soo ko partagé rek euh, mu jural euh, ay mbégte mu jural la li nga xamante ne moom mooy réussite ndax ki nga xamante ne dem na ba tollu fenn ci niveau d'étude mu leer na nekk na ci say loxo la jaar donc loolu dafa nekk satisfaction bu mag te euh, profe kii coach Moussa dafa junj lu am solo nee na ku la jàngal rek je pense que mbégte rek ngay am saa su nekk soo koy xool wala soo koy fàttaliku te ku la jàngal ba nga tekki doo ko fàtte voilà mu ngi noonu donc docteur Samba Ndiaye mu am ay casquette yu bëri nag mhm. donc ci lii ñu ko gis nii ñu ci bëri yaakaari ñu woon ne euh, mun na génn ci facette bii nii mais en tant que professeur moom itamit xam nañ ne li muy jàngalee am na solo ba tax na jeunes yi nga xam ne jàngal na leen ba ñu tekki aussi ñu ngi koy jaajëfal bu a baax ak képp koo xamante ne rek mu ngi def lu mel ne moom ñu ngi leen di jaajëfal asma am na solo Binta Ba mu mel ni nag li ni mel kenn ku ci nekk da ko war a euh, bàyyi xel pour sa gox

asma bu demee di jëndi ration alimentaire sax dafay bu ëppee dafay dindi yenn yi jëndal élèves yi ay crayon ak bic dem ba benn année ñu bëgg ko génnee këram donc élèves yooyu mu doon jàppale ñoom ñoo ñëw ku ci nekk cotiser ba génnewuñ ko loolu mu nekk ay leçon de vie yoo xamante ne ku nekk war nga ci mën a jàng asma am na solo bu baax a baax très bien roxee nee na problème yi ci biir kër yi ñu bàyyi di ko exposer ci réseau sociaux yi waaye mm-hmm. wax na ba taay waaye moom nee na du taay dafay gën a wax ak ñun ndax Sénégal da ko ñor nii lay liggéeyee réewam ndax kenn ku ci nekk ci lii la yàlla may ngay liggéeyee sa réew kon nag ñoo ngi lay déglu sama bàkk neex na nag. asma bi lay <laughs> dëgg la xamoo sax ni nga ko waxee fi ñu toll nii nag dañuy ñëw ci sujet boo xamante ne asma daf ñuy tenir à cœur. Hmm. kenn ku ci nekk boo yoree sa téléphone portable ngay déglu ñuy divulguer li nga xamante ne moom mooy ay histoire famille ay problème mu famille professeur Nafaxa dafa nekk lu nga xam ne dafa diis ba nga xam ne yow mi koy seetaan da ngay ruus. Hmm. alors que ki nga xamante ne mi ngi toog këram di woote wala muy def vidéo am di yàq ki nga xamante ne deretam la donc loolu foog ñu wax ci moo tax asma tey ñu ñëw bon comportement avec bonne manière